lañ ko war a may kañ lañ ko war a may tamit. Néné Balde nee na. Hmm. foofu noonu bëgg naa neex na fi nga ne. parce que hmm. Néné Balde aussi fi mu dugg dafa dama bëgg ñu ñëw ci mooy. Hmm. li ñu ne sànq maag Fall. maanaam question ba posé Fall ci ne. jàppal ma foofu nga nekkoon rek jàppal ma temps parce que damay fàtte. Euh, doon wax sànq ne. Euh, mbëggeel. maanaam kese doyul. mu ne mbëggeel day ànd ak yërmande te yërmande fu mu nekk muñ nekk fa. dëgg la. Mhm. tegal fa faal yow tegal foofu sa baaraam. Paa Ousmane yeggale fu mu nekk doon. waaw waaw waaw lu neex. waaw lu neex lu neex. lay dëgg parce que mbëggeel day ëmb yërmande. mais suñu mbëggeelu tey ñun. moo mm-hmm. mbëggeel dañ. waaw pare goo de Paa Ousmane demal faal ñu parce que suñu mbëggeel tey dañ koy conditionné. Mm-hmm. faal ñun dafa am suñu xol ki muy bëgg kum dul bëgg. Mm-hmm. suñu génération waaw attention maanaam maanaam ñun ñun dañoo foo. nga baal ma Paa Ousmane ñun bëgguñu ñoo maam si nit ñi. xam nga problème mooy lan suñ dee bëgg dañ ciy sóoraale suñuy xarit waaw soo ak nit ki kan la. waaw ak nit ki ni bëgg kan la maanaam mm-hmm. ñun ci ay profil la mm, ñuy bëggee merci beaucoup waaye bëggee wu ñu xol. merci beaucoup. dégg nga boo xam ne expliqué. waaw moom dégg mooy damay bëgg Pa Ousmane su ma ko présenté samay xarit duñ ma wax dara. Mm. kon kon dafa kon tànnaloo ak samay parents kon tànnaloo sa bopp say xarit ngay tànnal. ak say parents ak société bi ak société bi. damay bëgg Paa Ousmane. xam naa ne su ma ko yóbbee suñu kër sama sama sama papa dina kontaan. sama yaay dina kontaan. Mm-hmm. kon tànnaloo sa bopp sa yaay nga tànnal. ak sa yaay tànnal waaw. société bi nga tànnal. Mm-hmm. léegi nag boo dee tànn ak diw tànn ba day des. Uh-huh. boo dee tànn ak diw tànn ba day des boo xuleeg say xarit. Mm-hmm. ya nga daan tiitaroo. sëy ba yam fa. yam fa waaw. boo bu doon sa yaay la. nga tànnal wala sa waa kër. su boobaa fu ñu faatoo sëy ba yam fa. waaye li ndaw si wax. boo boo boo tànnee. yërëm ki nga bëgg. natt ci moom. ni am na cofeel bu mu lay delloo. yënga ni sëy yu metti yëpp yëpp yëpp. toogal muñ doo ko fa wax waa ji ndaw si day toog muñ. parce que dafa ànd ak bëggil bu ànd ak yërmande. Mhm. te boo ko yërëmee yë boo ko yërëmee muñal ko. muñal ko. dégg nga baax na si yàlla nag boo ko saqal ak baadoola. boo xam ne xamul li nga koy muñal. dëgg la yàlla boo seq ak baa doon. nit boo ko yërëmee sa yërmande. merci beaucoup nit boo ko yërëmee. muñal ko boo ko muñalee muñal ko. muñal ko gis nga xale yi mag muñal la gis nga mag ñi mag ñu baax lañ. Uh-huh. ba kii ngi waxtaan ak benn waay rek te boobu xaw ma woon ni thème bi sa mm-hmm. ma ko jox exemple sëñ Ibrahima Seck xalifa woon ca Canaba. Mm-hmm. ñu naan ko borom yaaram la. Mm-hmm. chef de village bi chef de village bi Thiénaba moo ko jur mhm. imaamu Thiénaba moo ko jur moo jur Serigne Jibi Seck mhm. bëri na mag ñoo xam ne mhm. wala ndaw ñoo xam ne moo jël seeni seeni seeni ndey may ko seeni bàyyi te seen bàyyi xam ko maa la wax loolu waaye boo demee ca ñamu mayee jigéen ñamu mayee kër yooyu pour dëggal li nga wax sànq ci euh, sa sang bi. Seydina Seydina Isa bëri na mag ñi. sëy yi ñu maye woon démb kër yooyu du gent mukk ci àdduna. ah ma ngi seen ñi dañoo defoon benn affaire bu am solo. Mhm. jamono yàqu ko mooy ñoo lay tànnal taaw waaye yaay sa bopp nag ñaareel ak ñetteel. Mhm. loolu fi xawoon. Mhm. ñoo daan tànn ñoo daan nga dem tànn foofu la aawal sa mbokk jóge. merci xam nga mooy aawa boo ko dee tànn yaa ngi tànnaali kër. Mhm. samp kër. Mhm. aawa boo ko dee tànn yaa ngi tànnaali ki lay doon ëllëg. te beneen jabar boo am mën la dem. waaw. Mhm. moo tax ne aawa maa la wax loolu. jabar joo am mu dem. bëri na kër yoo xam ne. ñeneen fekki woon dem nañu. waaye aawa ba moo nga fa ba lii ba léegi. te pourtant yow mi fekk si aawa bi. li nga muñ lu néew la. la aawa ba la aawa ba. muñ. dëgg la. Mm, mm, mm. seng la fa fekk. mag ñi dañ daan samp. te seen samp daawul daal. waaw mais ñun problème mooy xamuñu fan lañu war a tànnee jabar. Mm-hmm. ban milieu lañu war a tasante. am na foo xam ne bajjantu ba mel ni man de. merci nga def ko kan war a tànn. mu ñëw sa kër di di di di di wiñaaroo ko bajjantu di jaan. jabar am na kër tànn ci mm-hmm. koo xam ne dafa xet sa fan mm-hmm. dëgg la waaw dëgg la surtout. waaw fuñ la xeebee fuñ la xeebee. baaxul lu mbëggeel neex neex neex bàyyil. sëy ba du continuer. Mm-hmm. ak fuñ la bañee. ak fu la bañee. man moom kenn naa mm-hmm. ràññee fu ñu ma bañee. Mm-hmm. muy xarit muy soppee man grand grand place bu ma bañee sax du ma fa dem. mooy man am na bët boo xam ne boo ma ko xoolee incha allah dootuma ko xool. dëgg la mooy mooy fula. man li ma gis ci takk soxna. li ma gëm li may def non bëri na ñoo xam ne njëkk nag. ndax oto nga oto yor fas nañ ci nit ba tey jigéen ñi bëgg intérêt. fooy euh, gaare fooy gaare. waaw oto nga yore. boo ñëwee foo jaar nii nga jaar wala déet bu la leer na taxi ngay dugg wala kaarape wala kalandoo say ba tas nit boo gëmee sa bopp ki ngay ngoro bëgg kaa takk wala nga bëgg ko fexeel ba dem seen kër bul nangu moom mu lay seet seet bi neex na mais yow nga seeti ko seeti bi sax nga seeti ko moo gën ndax boo ko seeti jee da nga xam ndax am nga fi soxna wala amoo fi saa boo demee kër mm-hmm. kër goro nan lay rek ah nan lay fayee nuyoo rek ndax am nga fi yaay kan doomu kan <laughs> doxaan kan doomu kan nan la cay tontoo rek xam nga xam nga Ah, yéen it xam nañ kat nag bu ne. Ah. bu la bu la xale yi xamul rek kenn waxtaaniwu la. kenn waxtaaniwu la xale yu ndaw yi. Hmm. Ah. buñ la xamul. dañ laa war a xam xale yu ndaw kër gi dañ laa war a xam. dañ laa war a xam dañ laa war a xam. buñ la xamee rek waxtaanee nañ la kër gi waxtaanee. suuf suñu jabat boo ci bëggee doom di nga naan yaa nguu. dañ laa war a xam. moo yow. Hmm. <laughs> suuf suñu jabat yaa ko ñàkk. suuf suñu jabat boo ko bëggee doom di nga naan yaa nguu. Hmm. xale yi war nañ laa xam. war ngaa kafa xale yi war ngaa xam tuuru xale yi xale yi war nañ laa bëgg war nañ laa ñeme mais doxaan si xale yi ragal def nga erreur dootoo am ah. raison xale yi ragal am tontoo bi dañ kaa ragal daw di làqatu parce que ni nga bindoo la am na ñoo xam ne seeni kanam nañ koy fase mbir mi xoolal foo caar xale yi dañ lay bëgg yaay ji tamit dañ la bëgg gis nga boo àggee yaay ji bëgg baay ji bëggul teel dafa nag dañu am soxla bu yaay ji bañee baay ji bëgg bay mo nga wuri beneen soxna pour nga am fa soxna problème la ah bon loo bëgg wax ñooy kàddu yi ci kër yaay man yaay bëgg wax ay ah yaay yey kuy yey yaay ay mais kuy yaay ah, les ay ñu waaw d'accord ah, ñun man pare na ah. xanaa seen affaire yu jigéen yooyu rek ngeen di waxtaan ak maire bi dégg nga seen affaire yu jigéen yooyu ngeen di waxtaan ak maire bu maire bi d'accord rek d'accord naa man pare naa d'accord kon ba ñaga jabaru àngal Carrefour a koy tas. dëgg la bul dem fuñ la bëggeewul ku lamb yaatee daa ko fañ la ku xeeb say mbokk bu ci dugg. ku xeeb say mbokk te jigéen baax na ci aada woo takk mu mu mu mu naaw la mu ñee la. Mm-hmm. ku bëri njaboot gu jigéen góor goo xool ba yërëm ko may ko soxna bu say sëddee yalwaan bu la bett. góor dañ koy ñee. góor gi def na ni ngay yaakaar ci moom. nii ngay def nii bii teg naa fi un jox naa la ko mais bii. du ma ko du ma ko tàllal mukk. dëgg la te dara newu ci nag. waaw bu ñu ko yaakaar ñàkk day gën a métti. un million laa la jox a fii fii bu fii mën na xaalis bëri mi ngi fi te fii dara mën fee nekk ba dara mën na fee bañ a nekk mais mag ñi ñu doon def reer jot amuñu def cin ndox di ko yëngal di xale yi mais dara newu fi sa soxna toujours aw ma dara soxna na waaw àjjana def na ma ko may waajal xarum tabaski mbir mu métti lool moom xar mi da buñ ko rendee comme que sànc bu bees dañu yore duñ ko mën a lekk fu ñu jaar am congélateur sama xool bi jax ci takk sama xol bi jax takk kuy wër xar ama ko ko naan congélateur ma ne waa baax na bi ma takkee jug bay waaji dem ci jour bi laa am congélateur maa la wax loolu hmm? neel waaw rek jigéen ju baax boo amee lu mu la wax neel waaw bul gantu bul gàntu lu mu la wax neel waaw day ñëw day ñëw waaye gàntu aw ma dara moo tax ma ñu di bañ naan ay bul ma gantu fajar gii bu ñu joxee fajar jëlal sox gu fajar jëlal lu ñu la fa fay jëlal am lekk ku bëgg bañ gàntu da nga dem ba teraanga doog am dem kilifa kër kilifa din attaaya jox la baax na du ma nekk attaaya même boo naan attaaya naan attaaya sëñ ci attaaya ca kaasu attaaya ma ñuy xëccoo bu xaaral ma jox ma mhm. ah, bu ñu la jiital jiital bu ñu la toogal ci kaw toogal ci kaw politicien yenn saa di ñëw ci kër sëñ bi ñëw tey kër sëñ Idrissa Laay Voilà, à la, n'est-ce pas ala <laughs> non, la non non vous kay baax tu souffres, ci suuf doo toog ci fauteuil bi mukk mukk doo doon maire mukk ci kaw yow fauteuil bi ngay tant député nga non fii baax na toog ci suuf nga àgg ñu dóor la métti dóor yu métti kon da dégg ndigal déglu mag ñi bu baax a baax baax macha xam fi nga war a takkee wala xeeb bu fa takk te gis nga mant boo ngoori jee ñu dàq la nanguwuñu nga dem ba ñëw seen TV suñu fi contrat toog ci émission waxtaane ko nii naa man la Pape Ousmane Gueye dem ngin ginaaw fa nga doon ngooro ji nga àgg dem takki ji fa mayuñ la jabar des médias lañ may jabar dëgg la des médias lañ may jabar après day dëgg la dëgg la. sëy ma gis yëpp daa tas dëgg la parce que li ñuy njëkk lijjanti mooy waa ñaata lay fayee ko. Mhm. da ngay ñëw ñu la saa yi te parce que. am na ñoo xam ne non dëgg la. am na ñoo xam ne li ñuy liggéey la ñu may jabar waaye kenn mayu leen jabar la ñu liggéey la am na koo xam ni. la muy liggéey la xale bi nag de. ay mbokk ko de mbokk diw laa takk. waaw mbokk diw laa takk. voilà am na koo xam ne la muy liggéey la xale ba nopp waaye nëbbu ko. am na koo xam ne commerce boutique bi la magasin bi la nopp de waaye nëbbu ko. waaye hmm? kenn du yéen it yéenay profito ci ci ci télé bi. di hmm? profito ci rajo bi. ci <laughs> mhm. nan ci nan. yéen def ci seen ci ci profito xam ngeen. Oh, de Sénégal ñoo xamul. xam nga tey boo nekkee ci télé. Ah, xaw ma ko kat. non de profito amu ci. waaw man man xaw de ban profito bu nangu sax bu jéem a sax. profito amu ci moom mi wax na am lu mu jot xalaat mën naa xalaat dara bu nekkee côté gars yi bu dee ñu toog ci télé yi di sañse. ndaanaan raf la jiw ko. dañuy xos dañuy sol lu rafet nga foog na gars yi jeexaluñu lenn nit nag ku ñëpp di seeraan nag wala ngay génn fenn nag macha allah nga war a mel ni nga war a mel mais mbir mi bul foog ne nit ki bul xool nit ki ni ni fa mu toog wala ni mel wala tur wi te xamoo lu nekk ci poosam nga déglu fàttalul dama am question Mantoulaye ma posé la ko man posé man kay may posé question rek. waaw <laughs> Ousmane ma posé. waaw ko. denc gi tamit wax ji tamit nag ko dencal. <laughs> yaa ngi dégg. bi ah. loo ci émission bi. ñaari yoo xam ne dina ma arrangé. merci beaucoup werante gi lay mm-hmm. ma war a wax mu jël na naa day wax. dama naan ko toogal xaar sa question. di argumenté ak di xuloo di argumenté ak di xuloo lii ngay wax damaa neex lool. nit tamit yàgg na fa jël avion dem nekk Moodu Moodu ñum après tax ñu may la soxna. ko mayuñu la soxna états-unis la comme nangu ko posé par Ousmane du question piège. du question piège xam bu doon question piège. donc du piège bu doon piège du la ko nangu posé. mais eh, yow xamoo faal. Ousmane ndax nit dina sëy ak ku mu bëgg ba pare am moom doom. nit dana sëy ku mu bëggul am moom. doom ay doom bu baax. Ah, jigéen wala ku góor am na moo bëgg wala jigéen maanaam góor góor góor góor bu baax góor ndax dina sëy ak jigéen am ak moom doom am ak moom doom ak cee bëri te bëgg ndax jigéen dina sëy ku góor bëgg ko ba pare am ak moom i doom bi ci ëpp mooy xale bu góor bi ci ëpp mooy góor góor mën naa sëy kum mu bëggul am moom fukki doom waaw mais jigéen bu sëy ku bëggul mën naa am doom mais doom ja da kaa rëcc sëy ba mën naa mën naa bañ a yegg. Mm-hmm. jigéen du tricher parti boo gis ay jigéen ak i jeune parti bi mooy jiite réew ma mm-hmm. mooy moom assemblée ba mooy gagné encore mooy gagné mairie ba ak lépp parce que jeune du tricher jigéen du tricher premier jour mën nga kaa wala mu ci ay parents ba am ci benn doom bés ba muy am léegi gën a jënd ah dañoo gëm bëggeel dañoo gëm jigéen mooy bëgg polygamie mm.